salaamu salaamaaleykum bokki tugli yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum bokki ngeen sey ñoo ngi yëkkati kàddu ci turu sunu kilifa Galaay Sey te di leen siyaar bu baax di ñaan yàlla lii nu fi yendoo muy jàng alxuraan ak sikkar ñaanal ko mag ñi yàlla na sunu borom nangu lépp yàlla yàlla def ñëpp dugg àjjana ñoom ñëpp kenn bañ a des di ñaanu yàlla it lii fi xew ci réew mi yàlla na ci dégg doy ci barke Serigne Touba di yëkkati kàddu nuyu it borom dëkk bi Modou Fatick lay sëy di nuyu mboolem ku askanoo ngeen sëy di nuyu nag ñii ma seqal taabal ji muy ñi nga xam ne doomi ñëpp doomi ngeen lañ yaa xam muy doom muy jarbaat muy sët muy mag muy rakk ñu ngi kàddu di yëkk di yëkkati kàddu gi di nuyu ñëpp di am kontaan lool nag ci ndaje fooy mii nu def tey ndax day lu war loo xam ne boo ko defut di sa moroom def ko te ñu bari di ko def ci yow lañ ko royee doy na kontaan ñaareel bi mooy ay nit bu ñu yoree ay mbir di ko doxal ba gis ñëw seen gannaaw di ko doxal te woo ne nii ñu koy doxalee mën naa raw na nga yore woon yow war ngaa sant yàlla war ngaa kontaan loolu ñaar yooyu moo nu dab ci mbir mi. nuy ñaan yàlla nag ñii nga xam ne moo nekk seen loxo yàlla nañ ko eggale fu ñu foogul woon yàlla nañ koy eggale itam loo xam ne nii kenn ku fi a jaar musa ca àgg ci barke yonente bi ngen nag day dëkkub diine di dëkkub lislaam ku ne war ko bàyyi xel képp koo xam yaa ngi ci réew mi di doomi soxna war ngaa bàyyi ngeen xel ku nekk ci réew mi nekk ci ab gouvernement bi war ngaa bàyyi ngeen xel ndax dëkk boo xam ne am na juróom-benn téeméeri at xamuñu lu lislaam bay dunde jàng alxuraan rek la xam boobu dëkk nag dis ko war a wormaal wormaal ko nag jot na nit ñuy wormaale mboolem dëkk yu nekk ci réew mi tey dëkkub diine la ñu war a ormaale ngeen sëy nit leen di taxawoo la ñu war a taxawoo ngeen sëy dëkk boo xaye dafa nekk ci ay droit day fay impôt bu wate jotee ku fi yàlla teg ñu wateel la ba nga toog te musuñu laa bëggal dara booba dëkk nag ku ko ilif war ngaa bàyyi xel dëkk booba tey li doomi soxla yëpp bëgg nag ngeen da koo bëgg ndax dañoo toll jamono joo xam ne ni kenn wëratu la ndax kenn waaye nag kenn wëratu la dem jël a ñaqu nit di ko dunde nun nag ci doomi soxneel mbokk ci réew mi leen dëkk bëgg li ñëpp bëgg kon na état bi nañ fexe ba lii nuy wax ñu dégg ko ba xam ne ngel ab dëkk la ci biir réew mi bu def seen waru gar di di bay di dunde di wate di def lépp di fayu lépp lépp lu nit di def ci réew mi ngeen da koy def kon nañ jàppale ngeen la si jëkk nag moo di lii nga xam ne moo nekk suñ kanam mu di aw yoon dëkk boo xam ñaari kilomètre ak genn wàll oto mënu faa dugg boo fa déglee ñaar fukki oto ñi juróom yëpp dañ leen di jëli wala fa la des li oto yi paan démb ak tey kenn xamu nu mu toll oto am na oto boo xam ne waa wilaay ñoo ko abaloon fukki junne ñett lañ ci dépensé tey mu dem Tuubaa ñu jëndi ko tey muy door a muy door a jàkk te xamul sax dana baaxam déet am na oto yoo xam ne fi doon jaga kenn génnee leen ndax mënuñu la génn ndax dañoo ngiroo ci ñaari kilomètre ak genn wàll ci dëkk buy ay taxe di fay di wote lu ñu def di ko sa maam yi ba juróom-benn téeméeraat kooku nag jàppal ko jot na kon état bi ñu ngi leen tàllal loxo xam ne nag war ngeen a dimbali si ngeen ci aw yoon yoon wi nag mooy li nu jaaxal ñu ngi leen di sant nag ci acte yi ngeen def ci gannaaw ndax yàlla dogal na andi ngeen nu ndox mi yàlla dogal na andi ngeen nu courant bi ñu leen ci sat di leen ci gërëm ndax lu mën a demee mën naa am am na dëkk yoo xam ne amaguñ ko comme am nañ ko daa leen sant ci loolu waaye de tàllal loxo nag ci yoon wi nu dese nga xam ne moom la tàllal loxo lii ñu dëkkee dëggee tuddee fajukaay bañ ko fi te waxee ba léegi ki nga xam ne moo fi faj dana am juróom benn weer tànkam du jame kon ab tabax rek moo fa nekk waaye fajukaay amu fa jël jigéen mu war a wasin ñu teg ko ci sareet muy dem war naa xewi ci réew mi surtout dëgg réew dëkk boo xam ni fa mu nekk ak euh, tëli bi ñaari kilomètre ak genn wàll kooku état sax da ko war a rus kon nañu jàppale ba yoonu ñu defar ko ndax jigéen ñi man a noppalu ci boor boobu sonn nañ noo ngi tàll loxo nag mboolem kuy doomu ngeen nekk nag lii nekk suñ kanam naam diis na ci nun xëy na mënu ci dara waaye nag nan jéem sun kem kattan la def lu waay man lu waay am fekk fan da nga nu dégg da nga nu loo am joxe ko lii nu amit nu mën a tollit ca lañ koy def lii nu sémbur muy mbaar ñu ngi leen sant nag ci jëf ji ngeen def muy diir bu néew ngeen yëkkati lii nga xam ne lu bon bon bon dem na quinze millions ci juróom benn weer wala juróomi weer yombu tib dëkk am na dëkk yu bari yu leen ëpp aw tur fuuf gën leen rey fop buñ ko defoon du sotti dëkk yu mag seen mbaar yi am na ñetti at ñenn ba juróomi at yéen ngeen sonk juróomi weer kuule ko kooku ku ne xam ne seen pasteef ku ne xam ne seen bëgg seen dëkk waaye ku ne xam ne seen takkute waaye nag seen bopp ngeen ko defal ndax kuy liggéeyal sa maam boo sañoon loo def xeeb ko foofu ngeen toll yàlla na yàlla fayal lu leen li ci des mooy loolu ma leen wax muy yoon wi nag ku nu dégg ku nu gis dem néewoon ci yow wax la suñu bopp wax luñ bëgg ku ne def ci li man ndax ñu tàmbali du àgg te yéen dong nu yaakaar naa ne bu jógee yéen a koy eggale yéen a koy defar kon euh, li nga xam ne déggoon naa ci doy bi ñu fi tuddoon ba mu war koo defar ñi ngi ñaan yàlla ña ko defoon ñu tàllali loxo ñu dem làmbal nu yeneen dëbi yu gën a yomb yooyu ndax demoon na juróom fukki junni wala juróom fukki junni ak benn juróom fukki mil ak benn kooku nag yaakaar bu ñu làmbee ci prévisions yi des daa lu ko gën a yomb ñoom ñu defoon gëstu boobu nañu làmbaatu di ko natt si ba gis lu gën a yomb loolu ñu engagé ko fas yéene nag liggéey ko dama ne dem benn doomu ngeen sëy ci réew mi mën naa defar yoon wi kon nag bu fekkee lu mat ay junni nit ñoo ko séq nekkul lu war a mën a jafe parce que bi ñu am ci mbaar mi nan ko ca wala bu ko raw kon insha allah dana egg yàlla dimbal na ba ngeen xam ne seen dëkku maam bii ñaan moo fi nekk bari lu ngeen daa wuti si ab dëkk takki fas di yónni ay xare di ko fa jëndi tey seen dëkk bi lañ ko jënd si lépp lu daa dundee lu daa naan suukar sax dañ ko daa jënd ji leen dëkk yi léegi dëkk yooyu yàlla dogu doon ko jënd ñoo ko jënd si yéen si yéen pénc lépp luy jaay si lekku taax yi mu ngi ci magasin bi carte crédit sax du ko manqué wala gaz mbaa dara amul lu ñu di jëfandikoo rek te magasin bi du ko jaay muy benn ONG bu ko fi def loolu xam nga ne ñaan la am fi benn banque boo xay ni mi ngi ñu xaalis di dimbali jigéen ñi di dimbali ñu ñeneen sax ba am na ñu yëkk Touba sax ñu fi leb su xaalis amul benn dëkk kaw bu ne fii bu amul banque ci commune Kër Ndiop bii amu fi ngeen say rek la am kam xam nga ne kon loolu ñaan la jumaa ji yàlla doogu mu nekk suñu gannaaw ci kàttanu yàlla tabaxal na ko nu fi julli ajjuma te waxuma la waaye rajo yi groupe yi wante la yi lépp sax dañ ko dëkk monteel na ko defal na ko ci sunu dërëm demu ci loolu ku ne xam ne ku ne xam ne ñaan la kon ñaan yooyu nga xam ne moo fi sax nag lan bëgg doomi ngeen di xam li seen maam tollu ak ni mel ngeen gën a takkuwaat gën a jàppawaat kenn ku ne gën a gembuwaat noo ngi son nag dayira yi nag yàlla dogal na dayira tubaab bii jigéen ji toog ni jàkkaarloog ñoom ay jàmbaar lañ ndax bu ñu ñëw ñoo jël seeni oto xotti seeni yére indi seen xaalis bu bari andi dugal ko ci kees gi kon jigéen ñu man góor lañ yàlla yàlla faynu leen lépp loo xam ne yaakaar ngeen ko ci seen dund ak seen njaboot yàlla yàlla defal ko yàlla ngeen am ay maam jaara ci barke yonent bi noo ngi gërëm nag daayira dëkk bii nag jigéen ñii ci dëkk bi ay royukaay lañ bu mu ndaje mi dasee weer kenn dutu noppalu ñëppay ñëw kenn ku ne sa kër nu mu jagee nu mu baaxee ndax gat ñi te gan ñi waa ngeen dong lañ boole ne yëkkati loo xam ne ñi ñuy ñëw mënuñu ko léegi rek lañ fee di fanweeri junni ci taabal ji léegi booleeg seen i coono ak seen i yitte ak seen i liggéey ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm di sant nag daayira Ndakaaru Modou Kéré mii defe naa daayira ba këram la nekk wala soriwu ko ñoom it kaar lañ jël ak oto yu ndaw andi xaalis yu bari andi ko ci taabal ji kon ñooñu xam nañ ne fa tawuñ seen dëkku maam waaye nag seen bopp lañ ko defal noo ngi sant daayira Mbuur ñaari daayira moo fa nekk benn bi mooy bu mag ba jeeg ñoom nag ko ñoom ñoo ko yor ak Ablaye Seye ñoom ñii xaalis yu bari lañ ñu indil keroog dimanche kon ñoom lii la war ñu ci yàlla yàlla fayal na leen ni ki sant daayira bu ndaw ba gone yu ndaw ya yu ndaw ndawaan yi biis lañ jël soixante-cinq personnes booleeg andil lu xaalis yu bari fukki junni juróom benn ne noo ko barkeeloo bu déwénee yàlla na man lépp yàlla na ngeen man lépp bu déwénee ñoom bu buñ ko mën ku ne xam naa te gone yi am na si ñoo xam ne sax amuñ sax juróomi at xam nga ne loolu positif la ak yar bu ñu leen yar ak maam yu baax waaye nag seen barke maam dana leen wallu maa ngi jàllale benn message nag jëme ko ci nun waa Mbuur nun buñ jógee fii rek dimanche bu njëkk la suñu bisub ndaje ba bisub ndaje mi dikkaat danaa sepp nag ñaari xale muy im nu jaaj mii nu dëkkal tey im nu daal di ku mel ne moom man li gën a gàtt amul benn bés boo xam ne daan def tuur ak fu mën a nekk muy taw muy naaj muy liw te imta doo ko fekk fa koy bàyyi te fa muy jógee ak fa muy ñëw mat na cinq kilomètres wala quatre kilomètres wala trois kilomètres yëpp da koy dox ay retour te du manqué benn bés Ibra Seye mii benn bis dimanche buy manqué tuur du am xanaa bañ a nekk mbuur dana ñëw ande carnet yi bind ko réglé ko lépp na kooj ñu door a ñibbi te du manqué benn bis ñaari gor yu mel noonu ko am ci ab dëkk nag mu wóor la ñii bu ñu gisoon kenn doxal lépp des na war sant di leen ñaanal yàlla na yàlla fay nu leen waaye li ñu ñaan nag yàlla na yàlla def leen mag ba lii ñu bëgg suñu borom defal ko mag ñii ma wër nag nga xam noo bokk dayira ba ban sampee ba léegi ñoom lay ànd fu ma jëm ñoo may ñoo may gunge lu ma wax ñu ne noona la lu ma def ñu ne noonu baax na dëgg-dëgg ëmb seenu pay ndax bu leen neexoon nag ngeen di wax dëgg yàlla comme kii lu mat ñaar fukki at ñaar fukki juróom mu jiitanu léegi nag dana jot na nag nu ko nekk suñ kanam mu di nu jiite te it buñ ko waxoon mooy dëgg tey man loolu laa ñaan yàlla te moom laa bëgg nii ñu ma ko defee fii laa bëgg ñu defal ma ko foofa maa ngi leen sant di gërëm jiiri jiiri kontaan nañ ci yow ndax gëstu bi ngay def ci ngen wóor na ma ne am yembar munu ko xam-xam la laaj yar ak déglu ak teggin kon danga ngaa mel ne boole nga yépp kon dañ lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan yokk say xéwal sama rakk ji Ablaye Sène amul am am lépp lu ngeen gis ci groupe yii ñu ko di ko seetaan mu xaw leen a jaaxal boo xoolee ba ci biir Ablaye ko dugal nag moom xam nga ne poète la bëgg na dëgg na dëkkam bëgg na réewam bëgg na xeetam waaye na bëgg na ngeen bii mu bokk bu ko neexoon itam nag taxawaay beneen taxawaay ne man sama baay ba mu gën la fi jóge woon nangam ak nangam lu ne mu dugg si waaye moom daa futti ko xam ne ngeen rek la am ngeen la bëgg ngeen la tiitaroo foo tuddee Ablaye Seye rek ñu ne ak a baax loolu nag doy na doy na doy doy na ci nit moo gën ñu tudd la ñu lay tuddee leneen yàlla yàlla faynu la santaan nag waa dëkk bi nag ndax lii ñu nekk itam ku ne xam ne metti na ñetti fan nga wu summiku ub sa kër jox ko eggan di leen toog toggal di leen rootal te séenoo ci lu njëriñul yàlla ak ak ngërëmul sëñ bi ak bëgg sa sëb dëkk jar ngeen ñaanal yàlla na yàlla fayal leen presse bii nu jàkkaar lool léegi day loo xam ne mënatu ñàkk cim réew ndax loo bëgg a nit ñi dégg ko wala nit ñi xam fuy ngeen ak ngeen fu mu toll ak lu mel presse nga koy def rajo yi di ko wax télé di ko wax ku ko ci xam ne fii mooy ngeen dégg doluyaa si doomi ngeen si yéen ci wax ñu xam ñoom lii lañ bëgg buñ ko defee baax na bu ñu xam lii lañ bëgg waaye nañ ko dégg kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen liggéey te leen xam ne daal ñu am solo cim réew ngeen bu ngeen fi nekkuloon lu bari dana dem ba jàll mu tax ni duñ ko dégg te kon dana doy waar waaye nag gannaaw loo def tey bu ngoonee ñëpp is ko kooku nag ñu baax ci réew lañ ñu déwal am réew lañ yàlla yàlla fay lu leen ni nga sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla na ko teew na ngeen déwén jàngoro yàlla na fi jóg yàlla na ci dégg doy képp koo xaye xam nañ ko yàlla bu la jege balay dal kum dal yàlla na nga wér yàlla dellu fa mu jógee woon te barke yorante bi barke sëñ Tuubaa ñu ngi leen di balu àq nag di leen siyaar di leen ñaanal yàlla te xam ne jël nañ engagement ci yoon wi lu waay doxatee lu waay waxatee wax ko ci waxu yoon wi lu waay mën a dugal dugal ko ci foo am pexe moo xëy boo ko xëy mu génne fa dara defal pexe moom ñu ñu génne ci dara lu nu amee ko si ñëw nu mu toll itam nag lu mën a jar ay xeer lay doon waaye dudu jar ciment wala weñ waan mbaa dara mbaar fi mu toll mën nañ ci dugg ba pare kuule nañ ko nan ko ne ñukk nii ba yoon wi ñëw nu door ko àgga defar ko nan ko bëgg ku ne xam ne ni ku si xam dana egg incha allah mbaar moo dem sama bu kuur ko mel nii jëratul yàkkamti li gën a teew nga xëy kenn mën dugg jëkk bi moo di aw yoon nan ko defar te bañ see kenn nag bis na tey daal mooy farata mooy lépp yàlla na yéen ko teew na ngeen ngeen baal ñu àq wasalaam auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed waaye di sant Serigne Touba kàddu yi manoon naa ñàkk ndax lim mënee ñàkk ku dem ba am lu aw nga jàkkaarloog moom ca lamu def lépp sunu borom teg ko ciw yoon war nga ko sant yàlla ca ñaana leen ndax ñetti kàddu yii fi jib kàddu imaam Njaay mii di sama jarbaat ma bokk ak yaayam ndey ak baay faatloo mii ci tege di sama jarbaat ma bokk ak moom ndey ak baay jiili sëy mii ci tege ma jur ko muy sama doom ñooñu ñetti kàddu doy na sëkk ci ay kàddu waaye nag cant mënta ñàkk cant gi nag gannaaw ba nu santee yàlla noo ngi am cant goo xam ne noo ngi ko tàmbalee ci dëkk bii ak mboolem ku dëkk ci dëkk bi ku sant jaañ ku sant sëy ku sant sekk waaye di ca teg sëriñal Alsaan mii ak sëñ Moodu Keere sëy mii waa Mbuur boo nee Alsaan tudd nga ñépp Ndakaaru boo tuddee Sëriñ Moodu mi tudd nga ñëpp Sëriñ Alsaan noo ngi seede sunug sant ci mboolem ku dëkk Tuuba rawatina ku dëkk kër gu mag ndax nit nag ku sëntul yàlla ku santul nit doo mën a sant yàlla ndax ndajem tey jii weddiwuma ne day ndaje yépp baaxoon na waaye ndajem tey jii moom ren mii am na fu mu leen fawxa ndax mboolem ku askanoo ci dëkk bi ak noo ca mën a bokke gis nga sa bopp ci jataay bi ba xam ne ci nga bokk loolu nag day lu yomb waaye day lu jafe at mu ne it ñu bëgg ko waaye seytaane dafa bari doole fa mënta yàq rekk lay jaar ca suuf am lum ca ruur waaye ndajam ren mii moom seytaane génn na ci ba kenn ku fi jóge ku ne la la taxoon a jóg sant nga ca yàlla réccuwoo ca dara loola nag noo ngi leen koy sante bu baax léegi la ci des mooy lii alsaan wax nit ki kat bu demee ca tool ya ñu sas kaw sas naka bu jeexee nga ñibbi bu fa naajee mooma kon sas wii nunu sas di yoon wii kenn ku ci nekk nanga ko yóbbaale ca fa nga dëkk ca bañ koo yamale ca askan wa yamale ko ca ña nga xaayante ne képp kuy dégg lu baax dana ca sàkku yàlla sàkku ko sunu borom ak Serigne Touba muy doon lancement boo xam ne yamut ci ngen gi képp koo xam ne ab jullitub yàlla nga walla ngay taalibeb Serigne Touba sa mbir nga ca biir ndax mën na nga caa wute ngërëmal yàlla ndax dëkk bii kat nat teblu wuñ ne képp koo xam ne ñëw nga fi ngir ngërëmal sunu borom bu dee dëgg ci yow yàlla mën na la fee defal ngërëmal yàlla kon alsaan yal na yàlla jàppale leen yàlla bu nu gimiñ dugg ci yéen yàlla bu ci cat dugg ndax iblis dafa baaxut ndax ca nit ku baax ku la gën a baax moo dëpp natt Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo nu gën a baax nun ñépp yàlla def koo nattu ca wax na ne jàpp nañ ne gimiñ day mënumaa jàpp waaye man Sëriñ Tuubaa sax gimiñ jàpp na ma ndax Tuubaa laa gën a bëgg moom laa gën a xemmeem ca gimiñ jàpp na ma ba mu suma fee mën a dëkk kon gimiñ googee yal na nu ci yàlla musal noo ngi lay siyaare bu baax ndax li nuy wax buñ koy wax ba mu yàgg sëtub sëriñ Baara Mbàkke agsi kon ñaan nga daanaka ferang laayu na kon noo ngi lay dalal bu baax lanuy sàkku lii nu doon wax fii lépp nanga nu sàkkul ci sa barke maam sunu borom jàppandil nu ko ba defale nu ko nanu ko bëggee ca mu jig nu ca jig bépp jullitub yàlla buy wax sa doon la ilaha illallah loola rekk lan lay ñaan nga ñaanal nu ko gannaaw dañ doon wax ba nga agsi nga wax ba moom foofa lan koy dagg nan la ñaan ci sa barke maam rek lin bëgg ak lin yéene lépp sunu borom defal na ko. góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di te di leen gërëm di leen balaq ñaan yàlla na yàlla bëri jéggal daanaka wax bi sëriñ Xaadim wax na lépp li ci mat wax lépp wax na ko. waaye nag wax dañoo wax ne fa mu jóge du jeex waaye fa mu jëmit du fees ñu mbokk sant yàlla bu baax kon ni ko waxee rek am ndaje moom bu ci sëriñ ci sëriñ Touba teewee ndaje moom moom alhamdulilah rabbil alamin ndax sëñ Touba teew na léegi ndax lu bokk ci sëñ Touba rek bu fi teewee rek mooy sëriñ Touba kon nag ndaje mi yàlla ba muy doon sunu mujjug daje ma ngi gërëm waa ngeen gépp nag góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn gis nañ taxawaay rafet nañ nañ ko alaaji alsan ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant yi nga xam ne yaa jiite daayira ngen yal na la fi yàggalte te wéral la yàgg bokki waa ngen gépp ak ku sotoo ci ngen bis bi nag bis la boo xam ne bii suñu borom rek moo na ko baaxee ndax boo seetee ngen lay cosaanam ak léegi sii nga xam ne ngen nii ngen nii rek la mën a deme ngen nii dong la mën a deme kon nag noonu waa ngen war na noonu bokk sant yàlla bu baax a baax ndax ku sant sëy day man de man de du ma dama ci ko sant du ma ci ku sant sëy ndax sëy laa sant waaye nangoo liggéey jaamu yàlla doon ab jaambur du duñ tooñ seen moroom duñ tooñ seen boroom loolu la xam te sëñ Touba xam na ko sëñ Touba seere na ko ci ñoom waaw loolu sëñ Touba seere na ko ci ñoom kon nag képp ku sant sëy war ngaa góorgóorlu bu baax a baax ah bu looy wiyee nag maa ngi gërëm suñ mbokk njaañeen yii waaw suñ mbokk njaañeen yi nag fokk dama leen di gërëm ndax wax dëgg yàlla ngeen tolloo na taay woo xam ne yii wéet ni wéet goo xam gii bu duwul ak ñoom dana day waar ndax demoon na ba daanaka ku sant sëy bareetu fi waaye ñoom ñu takk seen njëgg nekk ci dëkk bi mel na mel na mel na ngeen mooy seen cosaan soxluñu fenn fu lu ngeen boo seetee ku sant ku sant jaañ da nga yaakaar sax ku sant jaañ amul cosaan waaye fekk na am na cosaan ku la toog ku la toogal ci sa dëkk nag nga dem mu nekkal la fa kooku ko mat naa mat naa sant kon nag maa ngi sant waa njaañeen gépp yàlla na yàlla defal xéwal ak biir defal ko seen ak njaboot wax dëgg sant nañ leen bu baax a baax a baax ndax ngeen bu demee ba tollu fii day gannaaw gannaaw yàlla ñooma ndax du mosuñoo dem moom mosuñoo dem fen ah gone yi nga xam ne it dañu fee jóge woon mu mel na dañoo bàyyi dëkk bi dem sañ ci feneen la leen taxoon a la leen taxoon jóg ku dem ku dem seen dëkk tey ba ba gis ko da nga xam ne la leen taxoon a jóg jar na jóg ndax teraanga lañ doon wuti yàlla dogal na am nañu ko ko dem ba gis fa ñu dëkk da nga xam ne am nañ teraanga bañ amee teraanga it fàttewuñu ngeen waaw bu leen yàlla dimbalee bañ am bañ bañ am teraanga fàttewuñu fi ñu jógee woon ndax xam ne fii mooy seen cosaan liñ fi war a def lépp def nañ ko ndax ku xool ku xool mbaar mi xam nangam million nga ciy dem nga xam ne kon fàttewuñu ngeen ku xool ku xool jumaa ji gis nañu ko liggéeyee nga xam ne fàttewuñu ngeen te ngeen bu soobee yàlla ngeen ca kanam rek waaw te ñëpp ñëpp ca kanam waaw ngeen ca kanam ñëpp ca kanam ngeen ni mu ak ni mel léegi sii kon xam na ne kon ngeen moom ca kanam rek kon nag yal na nu yàlla defal jàmm yal na yàlla defal ndimbal yal na nu yàlla defal xéwal ñoo ngi sant gone ngeen yëpp nag ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak ñi nekk mbuur ak ñi nekk ndakaaru ak ñi nekk tuuba ak ñi nekk feneen ak feneen sant nañ ñëpp ndax ndax ndax ndax dëgg seen xew bii taxaw nañ ko taxaw boo xam ne bii yéeme na dara maa ngi wut te loolu positif ak takkutif rek moo tax ñu def ko kon nag maa ngi ñaanal génn famille ngeen yàlla na ni yàlla defal guddi fan ak bi rek xéewal yàlla fi seen borom bàyyi te bàyyi fi mboolem julli bu góor bu jigéen yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla defal ay xéewal noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ahlul ngeen gépp Basiiru Sëy moo leen yi nuyu ci turu bu Naafi bu ngeen sëy di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw bàyyiwuñ kenn di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi sëñ bi toog ñu ngi nuyu baax di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom da teg Mbaye Modou Fatick Galaye njiital boroom dëkk bi di ca teg sunu imam Serigne Assane Sey di ca teg mboolem ko nga xam ne fii ne teew nga ci bis bi yàlla yàlla sunu borom defal lay yiw ñu ngi ko ñaala ñëpp bàyyiwuñ kenn waa dayra Mawahibou Nafih bu ngeen sëy ñoo leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak si sant di sant bu baax di gërëm di ñaan saa su ne lépp lu waay man ren su déwénee yàlla na nga man lu ko ëpp suñ boroom mën na ko yàlla nañu ko defal ñi ngi sant mboolem tudd yu ñu wër wépp bàyyiwuñu kenn muy góor di jigéen di mag di ndaw yàlla na yàlla fay leen yiw ñoom ñëpp yàlla mën na ko yàlla ko def di sant mboolem ko nga xam si teew nga fi yaa xam foo mën a jógee ki gën a sori fi mu jógee ba ki gën a jege fi ma ba gën a ki gën a ci am néegam ñëw ci baas bi ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn di santit bu baax bàyyal sant sëy ñu ngi koy sant saa su nekk di ko gërëm di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di sant euh, sëriñ Modou Kéré suñu président ci groupe bi moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di nuyu it sëriñ Jiri sëy ak sëriñ mu Modou lay sëy ak sëriñ Mountakha ñoom tamit ñu ngi lay nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo am fay mu fay leen yiw li nga xam ne si ni moom la suñ borom wax ci kuy doxu mbokk la ca ne ci aw yiw yàlla nag suñ boroom defal ñoom defal ko mbooleem ahlul ngeen gépp su ma nee ahlul ngeen nag bàyyiwuma ko sant sëy bàyyiwuma ko sant jaañ bàyyiwuma ko sant sekk ñëpp ngi ci biir ñu góor di jigéen di mag ndaw ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal àq ñëpp tey baalu di leen euh, leeral rek benn tomb boo xam ne xëy na suñu wax taxul mu mu bari lool maanaam feeñal suñu yéene it ba nit ñi teg seen ba taxul mu bari lool waaye suñu xol ak suñu yéene ak suñu kàtt nag lépp lu ci ne am nañ fitu def ko am nañ Pastef fu def ko waaye du ci feeñal lenn lu ci nekk lu nekk buñ koy def dañ koy def rek ngir yàlla def ko ngir ak mbokk loolu rek lañ ciy jublu bu loolu jàllee lii nga xalaat si ne moo ñu tiim di liggéey boo xam ne liggéey bu doy waar la ñu ngi ko liggéey ci ay weer yu néew mu mën a wax ne maanaam mbooleem ku ku ku ku askanoo ngeen rek yaa ngi ci biir muy liggéey boo xam ne ñun waa ngeen ngeen ñu ko defal kon liggéey bi yal na yàlla fay leen ci li ngeen def nii parce que yàgg naa di ko wax yàgg naa di wax lii yàgg naa di wax na nañu wutal mbaar moo xam ne maanaam jëli baas ak ak ñoom seen yooyu dana xaw a wàññeeku ci ñun ah kon ren la ko yàlla dogal yal na yàlla fay leen yiw di santit bàyyi galaay tooy mi nga xam ne moom moo ñu jiite ci biir dëkk bi su ndaj mu defee ñaari weer ñaari weer ci lay jóg du ci am jàmm du ci am salaam ngir bëgg rek ñëpp taxaw di waxtaan di diisoo ngir nu mu doxe bi ci topp mooy kër Serigne Touba gii farata la. war nañ fee def ndox laataa ñu jublu ci loolu amul ndox amul robinet robinet war naa am ci biir fii ak ñaari douze kabine war na fee am ñu di ko bàyyi xel na fi am ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax waaw kon ñu ngi sant mboolem ko xam ne teew nga fi di góor di jigéen di mag di ndaw di sant Serigne Khadim Seye mi nga xam ne moo newoon ci waañ bi ak ñi mu àndal macha allah yal yàlla fay ko mboolem coono bu daan daj ci waañ wi rek teggil nañu coono boobu kon yal na yàlla fay ko yiw ak ñu ngi ko àndal ñëpp macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp dañu mën ta wax nag tey loolu moo tax euh, macha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabil aalamiina. jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëf yéen mbokk yi fi daje yépp tey képp koo xaye ni yenn nga fi tey jii na leen wóor ne amal amal nañ leen njukkal gu wér man de mel na ne sama ñaan nga ma daa ñaan mel na ne mi ngi bëgg a nangu nag ndax yàgg na maa wax fii ne man nun de amuñu lu dul ngeen buñ sañoon day dëkk bi day mel ne përi yoon wa nag mel na ne yéen a ngi ci fi ne mel na ne day li ma dégg fii tey ak li ma fi gis lépp ca loole ngeen toog ndax nun kat danoo amul lu dul dëkk bi nit nag bu fekkente ne fu mën a jëm buñ ko laajee danaan dëkk sàngam laa dëkk buñ ko laajee moo ko foo jëm mu ne man de dëkk sàngam laa jëm bu sañoon dëkk boobee ku fa ñëw mu mel ne përi nun foofu la nekk naka jekkit loolu laa daa wax tiitaroowuma ko yit nag ndax nit ki war naa mën a wax lam bëgg ci dëkkam ndax boo ko waxee mu am baax na boo ko waxul mu amit it ñu xam ne yow yéene woon nga ko te yéene joojee yàlla mën naa dem ba la nga yéene woon yàlla dogal ko a ah ñi ngi jéggulu nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoo xaye ñëw nañ fi kenn ki fu ñëw ku nekk sa tànki dikk ak sa tànki dellu lépp yàlla na ko yàlla def ay xéewal yàlla mën na ko yàlla na ko def feebar bii nga xaye ni dugg na ci réew mi tam yàlla na ko yàlla saafara mu génn réew mi faw te bañatee dem ci benn réewum jullit yàlla na ko yàlla def képp koo xaye ni daal yenn nga ci bis bii wax dëgg yàlla ameel nañ la njukkal ndax jamono ji xat na lool te bërki démb ba léegi yéen a ngi fi nun ñi dëkk ci dëkk bi nag nun noo war a gën a doolee góorlu ndax lin war a gën a doolee góorlu ñii ñëpp kenn ku ne da wub sa kër ñëw ne nger rek lañ jëm kon nun ñii ñu fi fekk ñun ñoo war a gën a góor góorgóorlu ñëpp dolli ci lañ góorlu woon ndax góor góorgóorlu nan waaye nag ku ne xam na ne merci yomb na tubaab waaye nag boo ko ko jëfalul du la ko wax jërëjëf it yomb na sëriñ waaye boo ko ko jëfalul it du la ko wax kon jërë ngeen jëf ndax yéen a ko jëf ndax nit ki bu jëfee nga ne ko jëf wa xëy na xëy na bu fekkente ne sonn na yéen mën naa yokk ci liggéeyam dara kon jërë ngeen jëf fii ngeen ta fii ngeen jaar daal foofu rek la nun de noo ngi ñaan yàlla fi ñu newoon dañ ko yokk waaye fa suñu ci wàññi lu toll na tarfatal ay ni nun daal noo ma ko daa waxee rek lun am daal nun ngeen nu ko gënal fun mën a jëmin nag ngeen nu ko gënal fii daal lanu nu fii jëlee nun ci sama ci sama gis-gis ak li ma xaye ni moom moo nekk ci sama xol bi man xanaa ñu takk takk sama tànk yi ma xaye sañatuma bañ ñu ne ma ayo ñëwal dem baax ya rek lu dul loolu day man Kaba Diagne fa suma ma fi yéene jóge te lu ma xam ci luy defar dëkk bii sama sama tayeeg sama sawarak sama tëleeg sama lépp du ca feeñ moom bu soobee Serigne Mbacke fuñ na ma jógeel lu jëm ci dëkk bi rek def defaru naa fas naa te yéen a jëf sama kem kàttan depuis 84 ba léegi di maa ngi ci yëngu baye boo ma ne damawuma ko waaye lu ngeen seen fii muy luy nuru ab tabax wala leneen sama jot a nga ca wala samam xel wala sama doole kon loole bu ma sañoon kanam rek lay jëm rikk waaye bu leen mi ngi bëgg a magal ay doomam nangam nangam man de fas naa yéene lu baax lu nekk donte xottu gerte la yit ku ma ca woo bu dee ma naak caa kippar ci it ma dem fas ko yéene kippar ci ndax adduna kër parafitoo ndax lii nu yàlla dénk lu mu néew néew dan da bus ba ne day wàññu ko doole moom ku ne xam na ne yàggut day jeex am xel day jeex leneen day jeex kon bu la ci yàlla dénkee dara lu mu néew néew na ca parafitoo lépp loo yaakaar ne baax na rek buñ la ko waxeek buñ la ko waxul lépp taga fekk ko fas yéene jëf yow la nga man kenn ku ne loo def yaaka moom ku yaakaar ne nit ngay defal da ngay daal di toog kuy def ku nekk defal ngir yàlla ba lu la ca fekk fekk la ca waaye képp kuy def ngir nit na la woor ne doo dem fenn ndax am na ñooñ demuñu te buñ sañoon kenn du dem loolu moom na leer am na ñooñ demuñu fenn te buñ sañoon kenn du dem te luy tax ñu téq say tànkit fuñ toll loola loola loola dañ cay taxaw kon nan fas yéene gëmm rek bañ a gestu suñ gannaaw fas yéene rek lépp lu ngeen yaakaar ne baax na bu ngeen ñu ci soññee rek fas nañ te yéene nekk noonu waaw jërë ngeen jëf yàlla nañu ko yàlla teewale yaat déwén yu baree baree baree bari ñu fekke ta bañ a manqué kenn bañ manqué yàlla bàyyi noog sunum xel ak sunu ak sunu xalaat ak sunu dooleeg ak sunu lépp ba lépp luñ ca man ci yéeneeg ci pas-pas ñu def ko ci ngir yàlla ci bark Serigne Touba jërë ngeen jëfati yàlla nañ ko teew te askanu ngeen gëm naa ne buñ taxawee ci yoon wi ñaan yàlla dina yàgg léegi kon niñ ko defe woon fii rek kon kilifa yi waxee moo nekk sunu kanam moo nekk suñu ginnaaw nañ koy doxe di ko waxtaan na àgg fépp ba kenn ku ne daal loo am bu ko mu néew ku man sax weer wu dee neel li ma doon liggéey de xaaral ma génneel ci yoon wi kenn ku ne bu la yàlla déggee wërsëg tuuti nga ne xaaral ma génneel ci yoon wi gisa bi nga ko dajalee soobee yàlla léegi ñu egsi fii jërë ngeen jëf bu ko defee ñu jox sëriñ bi baal saan mu daa di war a jotte nag ko ci xaadim sëy mii di suñu doom dëkk mbuur nekk taalibe sëñ Mbàkke soxna loo yàlla dogal na ni ko sunu borom binde yàlla na yàlla fayal na ko lépp luy liggéey sëñ Tuubaa xaalim sey man fu ñu defum ndaje muy gàmm muy mbuur muy fu mën di doon saaku kafem ba bu ñu wol ba mbokk andi na ko ca andi na ko ci jumaa ja mbuur gii luñ fi liggéey lu ne laxasaay bu ko tekkee daa ñibbiwaat mbuur fanweeri ci nag juróom la togg tey te bokkul ak ñaari ci di café ya ñaari kaar la am benn kaar ba waa wilaay yi nga xam ne ñooy ñam am na ku nekk si seen biir moo ko jox fu ñu jëm moom la ñu yóbbu gasoil sax moo ko ci def dara wóorul ci ma nga ma benn bi lan ko lan ko dimbalee fayal ko mooy bi ñu ñëwoon démb ci guddi kon doom ju mel noonu comme ci dëkk nag war nañ ko wax ñëpp bañ xam taxawaayam ci askanam ci bu dëkkam waaye ci réewam xaadim sëñ Bay Awa Jaw mii yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla yokk sa xéewal fup taalibe egg yàlla nga fa egg yàlla bu la kenn ëpp te ay milliards ci barke Sëriñ Tuubaa nit ku baax la nit ku yiw la nit ku bëgg mbokkam waaye nit ku bëgg boppam rawatina nag Daaru Xuddoos gëm giñ ko wóo gëm ba wóolu ko ba boole ko waa wilaay yëpp fu mu jëm ñu nekk seen gannaaw loolu cuune mënu ko te coow la nekk yàlla yàlla fayal na ko ngeen xam ne royukaay la waaye ni ñu koy sant ko gërëm di ko ñaanal yàlla sëñ bi kon nga di dog ñu def ñaan ndax xaw naa guddi ba beneen yoon ak jàmm. amiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim وفلق من شر ما خلق وزلق وزلق اللهم صل وسلم يلا نتجمع